waaw gannaaw sant yàlla tey suñu teewaay dañ fi teew en tant que euh, producteur waaye teew fi tamit en tant koo xam ne euh, dañ ma dénk ma jiite filière bi di filière aquacole fii ci région bu Kaolack tey nag ñu ñëw seet si kenn ci kuréel gi euh, muy soxna Ndeye Khady nga xam ne moom mooy jiite GIE bi di Ramader nga xam ne dafa bokk ci association de filière aquacole Euh, ci invité bi nag ñu ñëw fii taan tey pour fekkee récolte bi nga xam ne mi ngi ko doon def euh, ñu ñëw nag fekk fii waa Kër Baka fekk fii ñi nga xam ne ñoo nekk ci ferme bi rawatina ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey waaye gën ci am tamit beneen kontaante fekk fi ki nga xam ne mooy chef d'antenne bu Fatick ak bu kaw Kaolack mi nga xam ne mooy monsieur Diédhiou mi nga xam ne wax na ko sànq ci biir waxam ba mu jëlee service yàggul. waaye def na ay jéego jugee fu mel ni Fatick ñëw ba fii ngir fekkee lii ndax comme ni mu ko waxee ñun euh, ñoom ñun lañ fi nekkal maanaam état moo leen fi teg ngir askan bi pour képp koo xam ne da ngaa bëgg a yar jën wala képp koo xam ne am nga ay jafe-jafe ci wàll wi ñu fexe nuñ la jàppalee ba nga mën a saafara loolu bokk na ci sax loolu moo tax ñoom ñi taxawal association bi ndax ñun comme soxna Ndeye Khady ni mu def nii ci loolu la ñuy yëngu ay producteurs lañ waaye comme yarum jën dafa nekk euh, lu bees ci Sénégal euh, te mbir bu bu beesee pour mu mën a yegg am njëriñ ci askan bi foog état dugal ci loxoom moo tax état taxawal fekk fii euh, direction boo xam ne loolu moo ko tax a jóg mooy agence nationale de l'aquaculture nga xam ne weer yi passé rek. Euh, directeur général bi ñëwoon na fi defoon visite fi nii ci Kaolack euh, pour moom it en tant que chef de antenne mu ñëw fi tey euh, loolu dañ cee am dañ ci am lu ñu neex a neex ñun nag appel bi ñuy def mooy wax képp koo xam ne yaa ngi fi Kaolack ne la filière aquacole am na existe na fii ci diwaanu Kaolack te dara taxu koo jóg lu dul nu mu jàppalanteek ndaw ñi. Euh, femmes yi ak ñepp parce que col adulte sax mën nako def ndax lu am njëriñ la te lu am kom kom la te soxla neen ko de directeur wax nako ko waye lu melni tol ku wax salum wax bassin arifidier man manan bassin agricole tol la bo xamne ne ferme intégrée la manam ñing fi bay ñing fi chamu ñing fi nap kon lepp lo soxla ci walu dundu am fi loolu nag yar bii di yarum jën dafa bokk ci pàcc yi gën a am solo ci e, ci wàll dund tey non seulement daf lay dundal may la production ci wàll jën bi waaye tamit dina la dimbale ci agriculture bi nga xam ne moom la ñuy wax écologie nga xam ne tey bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci àddina bi muy changement climatique bi nga xam ne dara waral ko lu dul pesticides yeeg yooyu waaye yaru jën bi daf lay dimbale yow ba boo bëggee def agriculture maanaam dootoo soxlati di jël ay produits chimique ay engrais chimique di ko jënd di ko ci def ndax boo yoree sa jaree sa jën di nga am jën waaye tamit di nga am ndox boo xam ne dafa fertile ba nga xam ne yow boo ko rosé garab gi garab gi dina ci mën a dund dina ci mën a am naataange kon amul dara loo ci sànni ndox mi lu muy bëri bëri boo ko defee ci mbal kay yar ci jën yi bu jën yi paree nga récolter sa jën wala balaa ngay récolter sa jën sa ndax ndox mi di nga ko faral di changer heure boo ko changer gàncax gi nga koy jox gàncax gi jël li nga xam ne moom la soxla te xam-xam wane na ne sax ñoom ñaar mën na leen a boole daf leen benn système aquaponique ba nga xam ne tamit loolu yëpp mu ngi ci programme association bi nga xam ne dara daal taxu koo jóg lu naka la ñuy fexee ba ndaw ñi. xam ne am na ay liggéey yu existe yu baax yu fi nekk yoo xam ne mën na leen jural koom-koom ñoom ci seen bopp waaye tamit mën naa jural koom-koom réew mi ndax bu ñu amee benn mbay boo xam ne mën nañoo dimbale ci bañ a jéggaani lu mel ni engrais mais loolu ku ne xam ne ne engrais jafe-jafe bi ñu ciy am te buñ jëlee engrais bii nii ci ndox mi lim ñuy jëriñ dina defar suñu suuf mais tamit dina sell suñu li ñuy produir waaye tamit dina joxe koom-koom. kon daal lu ci nekk yarum jën euh, lu lu bëree bëri moo ci nekk moo tax ñun ñu gis ko wax dëgg yàlla gis bitim réew tamit ñi ñi di ko développé foofu bu baax a baax man fu mel ni Égypte def naa fa ay yoon yoon def naa fa jàng naa ko fa fu mel ni Nigéria da ngay gis koo xam ne dafay tabax usine dégg nga te ci yarum jën la ko defaree ku tabax euh, chatoom nga ne la ñu ne la kii nii aquacole lay def kon ni nga xam ne noonu la jaaykat bi fii nekkee di yaree nag ba bu bëggee dem mak suñ mbokk pël yi dañuy jaay sen nak dem mak nit mën na yer jën wi jaay ko tabax ci kërëm daf ci leneen ak leneen manam ñun suñ bëgg-bëgg moy ñi ñi secteur la bo dafa am solo te ñi dañ ci war duggal sen loxo ndax kom la mo ci nek ci biir ak ci biti di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais di nuyu madame la ministre soxna ndey xadi mi nga xam mo taxawal li tamit ak monsieur cham ñi nga xam ñu jox nuyo yi association de filière aquacole nga xam ne tey li mu nekk ci biir euh, semaine bi nga xam ne liggéey bisu liggéey la waaye ñu bëri ci association bi bëggoon nañoo ñëw teew waaye man bu ma teewee rek teewal naa ñëpp maa